comme euh, li Bira wax rek laay ñëwaat mooy que l' état c' est nous c' mm-hmm. donc euh, l' état le euh, devoir de de protéger les citoyens. Ouais. te protection bi. dafay toujours mooy mu préserver les intérêts de des donc notamment mm-hmm. des couches. Mm-hmm. quand même vulnérables. te boo xoolee loolu ñëpp Sénégal tey. Euh, j'ai bien aimé euh, l'attitude de, du ministre du transport. Ouais. voilà euh, période tabaski bi. quand les gens ont voulu. véritablement augmenter les les les les, les prix du transport. Mm. dafa ñëw jël une position radicale. Mm. décision boobu c'est vrai c'était impopulaire mais boo xoolee la la grande majorité des Sénégalais étaient pour. Mm. parce que li mu def en tout cas c'est une attitude courageuse. waaw bo commerçant yi kii pardon <laughs> les les transporteurs yi waaw mer nag je <laughs> pense que nañ comprendre ne mhm. euh, c'était une situation qui était là mhm. état ak ay collaborateurs am naturellement dañu war a ànd mhm. waxtaan parce que loolu Sénégal lép teraanga la euh, je pense que doyen Albert lu mu wax dëgg la opposition bi dafu ñu ah, ils ne veulent pas être ridicules ces gens xam nañ ni très tôt de sortir et peut-être de tirer euh, parce que tamit ñëpp xam nañ ni lu am ci même un combat sax bu amee dañ dañ bañ a bañ a round d' observation. Mhm. donc sëgëm ci combat la ñu la ñu permettre loolu mhm. ma sama ci affaire ay opposition pouvoir donc il faut nga may nit ñi. <laughs> donc ñu ñu ñu jël temps imprégné wu ci dossier yi. jël mhm. seen i marque ba pare nag ensuite door a mën a progresser. doo ko mën a progresser voilà donc loolu.